asalaamaaleykum. waaw salaamaaleykum mbokki mbaaw. ñu ngi nuyu yéen ñëpp di leen ziar kenn ku ci nekk turam ak santam. kon ni ngeen ko déggee bu ngeen gisee fu ñu taxaw ngeen xam ne am na lu xew di match de gala bu rëy ci diggante agent municipal yi ak waa presse locale bu mbaaw. match de gala la mais match d'amitié parce que ñoom ñun lañ fi nekkal ñun ñoom lañ fi nekkal. Mhm. ñun ñoo bokk lu ñuy def. Mhm. kon match bii dañ koy rafetlu. incha allahu rabbi euh, waa presse nag bon peut être mën nañ leen bàyyi ñuy wax nii di mbaw di mbaw nii quoi ah, mais l' importance ah, bi fii la affaire yi fii la fii ci biir stade bi fii lay xewee quoi. après séance d' entraînement bi ngeen gis léegi contrôle passe yi rotation yi benn benn bi xanaa war ngeen tiit. presse bi dégg nañ leen dégg lañ leen bu baax a baax a baax affaire yi mbaxalu mbaxalu xeer la rek njëkk a sóole taxut a njëkk a ñaar ñu ngi leen di xaar nag. comme yéen yéenay presse yéen a mënee wax wax leen ñoo ngi leen di xaar fii ci terrain bi ñu wan leen ne ñun mënuñu wax jëfe la ñu mën. ñu teg lépp rek sur le haut parrainage du maire. de la commune. lu tax ndax moom mooy le premier magistrat de la commune kon lii bu amee une première dañ ko koy jagleel bu beneen yoonee ñu xool keneen kuñ ko jagleel. suñu maire monsieur Abdou Karim Sall. bi xamni moy suñu pané ñi ngi koy woo baax ci match bi bon di wax suñu secrétaire municipal Emery Seck wa moom mi nga xamante moy suñu kilifa bon vraiment ñi ngi koy talal wax loxo mu gëna japp ci match bi wa moy suñu sponsor moy lepp ñu la suñu dañ ko gérer fi ci terrain bi inshallah inshallah rabbi ak agent yépp ñi ngi koy yëgal agent yépp ah na gaa yëpp ñëw waa mbaaw yépp genn ñu def ko fête comme le maire lañ ko parrainé Abdou Karim Sall yaakaar naa ne kenn ku ci nekk euh, war nga ko délo njukkal kon lu melni bu amé bon dañuy sawar agent yépp genn population bi yépp genn ñu def ko fête jeunesse bi yépp genn tout, tout jouer dans le fair play. quand gars yi ngi ñëpp soxna internautes les téléspectateurs yi ñëpp ñëw leen soutenir wan leen du du caméra yi rek aussi balbi bi. Mhm. gis ngeen image yi mercredi Inch'Allah, vous avez un match impressionnant kon kon ba mercredi incha rek ñu jox rendez-vous kon ñëpp rek ci stade municipal bu Mbao ah, équipe bu APM ñëpp ñu ngi ñëw di pare incha allah ngir defal gars yi bagage di ci woo nag eh, bu baax moom it Malick Diagne eh, nga xam ne bokk ci bagage yi waaw dañ koy soxla fii ci eh, suñu biir Malick Diagne ñu koy woo di woo président Guissé ñooñu dañu nekk suñu su soppe mhm. waaw di woo nag képp ku lu koy seetaan nag newetaan bu Mbao ñu ngi lay woo nag waaw presse bu Mbao ñoo ayee war a defal gars yi yoo xam te ni du am fenn fii rek lay am ci stade municipal bu Mbao en tout RMB DTS Mbao Info Sen Leral Mbao FM euh, euh, euh, production mm-hmm. Banlieue TV mm-hmm. xam ni mais ben onze moins parce que match du match grave non eh, match eh, grave, <laughs> match non liñ def allons la